wax dëgg ci yàlla ñun ñoo initié li comme ni ko maire waxee li tax ñu li tax ñu initié la ko mooy dafa am loo xam ne ku wax xam dans la région de Dakar comme dans dans le département de Pikine nga xam ne moo ñu jiite woon ak dans le département que je dirige aujourd'hui muy Kër Massar ku ma xam-xam ne ni li ma gën a bañ ci aduna mooy gis délégué de quartier bu amul saleer loolu rek moom mooy moom ñu gën a métti ci àdduna léegi nag bi mu ñëwee fii ma ñëw wax ko ko mu def ci wax mu gaaw wax dëgg si yàlla ñu ne kon lii waruñu toog rek nit ki defal la lim la defal parce que bi bi tabaski desee cinq jours am ñi doon fayeeku ville de Dakar kenn ku ne def la rappel deux cent cinquante mille ñi nga xam ne mosuñ am euh, indemnité kenn ku ne mu rappelé la quatre euh, euh, cinq cent quarante mille kon loolu bu ko defee dama yaakaar ne ñun tamit nag war na am ñu taxaw ne ko jërëjëf loolu dong moo waral mbir mi waaye du leneen. délégué de quartier day am ay jafe-jafe yu méttee métti métti métti métti parce que ki jotul maire ci délégué de quartier bi li ñuy te bët bu set doomu aadama yaa ngi ñuy àkk ci dépense lii problème bi problème bay problème yi du jeex ci quartier yi bët bu set ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy eh, eh, eh, délégué quartier yi ñu ngi koy daj te ñu ngi lamb seeni poos ba bañ doon desee dara. dañuy joxe sax ba joxe seen i dépense su kër kon loolu su fekkee ne moom dimbali nañu ci loolu ba am loo xam ne lu mu bon bon bon boo ko épargner teg ko di ko joxe rek tombul balaa weer wii dee mun na am sax nga dese dara kon loolu jën dañ leen ci sant di leen ci gërëm di leen ci ñaanal yàlla jàmm ak salaam te li yàlla dogal it li yàlla dogal initié naa depuis 2017 ba tey maa ngi ciy dox ba tey ci c'est c'est en très bonne voie que l'État va prendre euh, état bi dina jël indemnité délégué de quartier Sénégal yëpp jëlal jël ko en charge d'après d'après dig ñu ma mujj a dig dinañ ko jël en charge di ko awale nag ci maire mais c'est-à-dire dootul bàyyi ko ci keesu maire état moo koy di envoyé comme ni ñuy wax fonds de dotation genre fonds de dotation ñu fay délégué yëpp kon loolu ñu ngi ciy sant yàlla bu baax parce que ça en très bonne voie actuellement am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ci jamono yuñ toll nii que ni peut-être xëy sax balaa 2023 bi di jeex mun na am loolu commencé. ndax li ko waral mooy euh, wax nañ ko sànq waxati ko bi ñu ma falee ma nekk maire président Diogay seen bi président association délégué dafa ñëw ne ma dafa am loo xam ne bët bu ñu yàgg jooy la yàgg metti ci ñoom munu moon nag dama buggoon dama ñaan naa yàlla mu saafarawo ci ci ci yow ma ko lan la mu ne ma. dafa am délégué de quartier yi fi nekk jege nañu téeméer mais ñu ci tuuti ñooy fayeeku weer wu dee te ville de Pikine moo leen daan fay ville de Pikine nag décidé na ne dootu leen fayati ndax ak loi yu bees yi commune bi la war a fay te bu ñu war a fay mbëbëtam moo doon ñu fay ñëpp bañ a fay ñi bàyyi ñi ma xamoo na ko loolu moom président avant may nekk maire sax dafa nekkoon mëbët boo xam ne jàppoon naa ne du lu jaadu ay bu nekkee ci commune di bokk même liggéey bi ñuy def délégué yi di yu ñuy fay ko loolu moom euh, du lu jaadu. mais nag loolu mbëbër bu amoon la fat bi mu ñuy wax moo ko nag suñuy xalaat daje ma ne ko nañ te def liggéey mu taxaw ci ànd ak délégué ñu def liggéey bi ñu war def yëpp toppatoo kuyit def lépp bi ñu ñëwee ma waxtaan ci ak bureau municipal bi waxtaan ci ak conseil municipal ñoo tim ma ko bëgg gën koo nangu ñu félicité encouragé leen ñu def liggéey bi ñu war def yëpp dem jébbal ko sous préfet moom tamit soxla sous préfet de l' arrondissement de Yëmbal Khadim Gueye moom tamit mu taxaw ci taxaw bi mu ci war a taxaw taxaw mucc ayib ba lépp sotti ba tey délégué yi nekk ci commune Yeumbeul Nord yëpp jege nañu téeméer mais ñoom ñëpp ñu ngi fayeeku euh, ñu defal leen seen attestation defal leen seen carte professionnelle weer bu dee ñu fayeeku ma wax aussi ne leen date bi ma signé arrêté bi laa bëgg ñu commencé leen fay donte yéex na leen fay mais nañ leen rappel moo tax bi ngeen fay ñoom ñëpp dañuy def ay rappel fay leen li ngeen ameel yëpp nag weer wu jot dinañ ñëw fayeeku li ñu war a fayeeku loolu nag bu ñu ko defee ñoom du dara par rapport liggéey bi ñuy daj ci quartier yi sonn nañ ci lool ci quartier yi kon ñu ngi di nekk loo xam lu war la rek ndàmpaay bu weer dee ñu ne téye leen lii nga xam ne ñu sonn ngeen ci quartier yi te loolu je pense que mooy ñoom nag ñoo décidé dañuy def sargal man ne woon naa président sax jaru ko ndax ñun li ñuy def rek ñu war a def la ñu def waaye nag ñoom it ñu ne ah comme ñoom gis nañ ne li ñu def rëy na ci ñoom dañoo bëgg def sargal ñu sant leen ci gërëm leen ci kon ñu dajale fi ñu tey sargal ma ni gis nga bu rafet mi ma sol ñoom ma ko solal solal ko aussi le sous-préfet Khadim Gueye solal ma mbaxane jox ma ay marakis muy lu rafet loo xam ne sant nañu leen gërëm nañ leen kon bu ñu ma sargalee sargal nañu bureau municipal bi bu ñu ma sargalee sargal nañu conseil municipal bi ndax ñoom ñoo ànd ak man ci décision bi ba lii mën a am kon nag euh, ci sama tur ak turu ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm bu baax association bi di leen sant di leen gërëm ci taxawaay xam ne taxaw nañ ko accompagner ñu loolu nag bu koy def dañ leen di ñaaxaar rek délégué ñu gën a ah, yokk seen taxawaay seen taxawaay rafet na trop ñu gën a taxaw gën a jege population bi ndax ñu loolu mooy lu ñu bëgg tey autorité bi ci kaw à partir du maire ba ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf bu ñëpp àndee bokk ndey bokk ba liggéey bi mën na rafet loolu moo tax barke démb gis nga ñoom la ñu àndal ñoom délégué de quartier wër commune bi yëpp def li ñuy tudde ay fora foora yi nag dañoo dajale quartier yi waxtaan ak ñoom ne leen kat dañoo jëm ci budget 2024 lu leen xalaat nu leen bëgg am na xale dañu xamoon ak ñu gisoon yu bëri mais dañ koy feddali rek noonu ko gisee noonu ko bëggee foo leen bëgg ñu jaarale fi budget bi fora yooyu terminé nañ ko bala 11 bii di ñëw samedi 11 novembre dañuy def benn forum bu mag boo xam dinañ tëj fora yi jël xalaat nit ñi dajale ko ba bu ñuy nas budget bi ñu mën ko cee boole loolu nag ñu ngi ci gërëm bu baax association des délégués de quartier ñoo ngi ci jàppale ba liggéey bi mucc ci lu ñuy ëpp lu ñuy gis fii ci Sénégal nit ki buñ ne dañ koy sànkal rek dafay fekk muy dem soit muy dem wuy boromam wala mu jóge ci gox war a dem liggéey ji feneen waaye yéen yàlla may leen xel mu rafet ak bëgg lu baax ngeen ni ñun ñi nga xam ne dañoo nekk ba léegi suñu exercice muy la maire muy la sous-préfet ak ñi ñu àndal liggéey dangeen leen di woo sargal leen ci kanam population wu yëmbal loolu wax dëgg yàlla ñu ngi leen ciy sant leen ci gërëm euh, ay mag bu ñu bokkee ay ndaw jotaay su ndaw ñi ràññu ko dafa fekk mag ñaa baax ndax bu dee maire la gis ngeen façon maire bu ne bu dee sous-préfet la aussi gis ngeen sous bu ne ci wàllu xam-xam ci wàllu daraja waaye bu ñëwee tey boole ñu seen biir nangul ñu wàññeeku naan da nga ñuy sargal loolu seen kawe jëf la ak seen baax donc ñu ngi ciy santaat délégué de quartier yëpp yëpp yëpp yëpp di wàññeeku tamit di leen ñaanal yen bii nga xam ni ñoom la leen yàlla yen ñu jiite ko ci population yi yàlla na ko yàlla dolli di oyofal dañuy wax ni quartier yi ak village yi ñooy échelon administratif de base réew mi nag bu ñu amee jàmm nañ koy santé délégué de quartier yi ak chef de village liñ fi yor ci FDS gendarmerie police ak yeneen service yi jëm ci ñoom di góor góorlu di jàppale njaboot yi ci ñi tegu ci yoon macha allah réew mi sant na ci yàlla waaye nag liggéey bi délégué de quartier di def à la base chef de village yi def di ko def à la base yaakaar naa réew yi nga xam ni peut-être amuñu loolu ñu ngi gis ñoom conséquences yi ñun nag ndokk bi ñu ko amee te ñu ngi ciy santaat yàlla bu baax ndax tey jii bare na lu mënoon a dem police bare na lu mënoon a dem tribunal bare na loo xam ne mën nañ ko toog fii ci bureau maire bi di ko waxtaan wala ko indi ci sous-préfet di ko waxtaan délégué yi ñu ngi koy lijjanti te kenn du yéen donc ñooñu tey bu ñu wàññikoo ni ah dafa am lu yoon warloog ñoom mairie warloo koog ñoom ñu jox leen ko te ñu xam ni matul xaaj xaaj xaajaat bi coono yi ñuy daj ak difficulté yi ñuy daj ñu wàññeeku ñoon di la sargal gore mënut donc nag ñu ngi leen di santaat suñu sant am na fu mu commencé mais amul fu mu yem ci cant googu nag ñu boole ci njaboot gi ngeen jiital muy population yi ku ci nekk délégué ci sa quartier population bi nga jiite rek lañ ñeen ci yow sant nga jotal ñu ko ndax ñoom tamit amaana bu fekkoon nii am na nu ñu mel loolu mën na am chaque jour kon ñun ñu gis délégué de quartier yi suñuy bureau wala chaque jour délégué de quartier yi dem police mais nag boo jiitee njaboot yenn saa yi mu lay dimbali bien que ñëpp mënuñoo baas ñëpp mënuñoo maase weex faaw am ci ñu xaw a ñuul xaw am ci ñu xaw a dóomataal mais nag sentir nañ ci seen gannaaw que ñi ci ëpp peut-être ñi ngi topp seen i wax donc loolu nag dañuy ñaan mu continuer ñu ñaanaat leen yéen tamit rek ñu gën a takkuwaat buñ ko sañee wax ndax liggéey bi des na euh, coono yi des na tool bi liñ ci war a jubbantiwaat des na waaye nag comme yéen a ngi ci dañuy ñaan rek yàlla may leen kattan ngeen mën a continuer ci tool boobu